بالإله المهين من جميع waa sëñ daam ñu ngi lay jaar baax euh, xanaa nag euh, fi mu nekk nii day euh, yegg si nañ ci bés si gannaaw bërki démb daje gi nu daje fële frontière ngeen jógee ndeysaan Mauritanie di dugg si ànd ak Pastef lool ak yéene ci liggéey bi ah, fan ngeen toll ci café gi gannaaw yéene yi waa lu café mhm. ànd ak soxna si ndeysaan waaw fan ñu ngi lay siyaaraat baax di si ñaanal suñu si bi ak suñu tuwél ak soxna mi nga xam ne si mooy suñu jooju euh, ànd ak ñun gis ak waa Houka Fine nga xam ne suñu fekk bu mbokk talibé yëpp fi ñu toll ci liggéey bi nag bokk na ci euh, na ci xitma bi depuis gi dem ba léegi ñu ngi commencé di nekk ci café gi te gan yi nga xam ne suñu ñu ngi ñëw dal ci hôtel yi ak mbooleem bërëb yu leen dalal ñu nekk ci café gi nag ci xitma ba tey suñu gaal dogal ñu ñëw ci bis ba léegi mën naa ci fajar ba léegi dañuy jàllale café ay heure yi fasanti ko ngir bëgg mu gën a yaatu incha allah fii ba fajar noonu lañ ko fas yéenee amale ànd ko xasida yi waaye ndax jàng xasida ak naan café daa bokk ci mandargam yoonu mu incha allah loolu tax daal xasida yaa ngi jolli kafa ngi dox jërëjëf jërëjëf jëwriñ daal